Elia damay dem ci Wally Seck mi nii na bàyyi na waay mais dañu gis euh, Baye génn ne Omaro kenn gënu koo jege Wally te lépp lu mu wax Wally moo koy waxloo yenn saay mais nee na Omaro bi doon wax chroniqueur moo doon wax mais pas Omaro bi nga xam ne porte-parole Wally la mën na waxee en tant que chroniqueur mais en tout cas moom confirmé ne ne Wally du bàyyi way te dese itam du tee nit ki mu àggale liggéeyam bi mu bi mu bi mu nekkoon di ko di ko exercer euh, ban jàngat ngay def ci kàddu <clears throat> baysal yooyu waaw baysal kenn gënu ko xam diggante ak moo Omaro euh, kii di Waly ko sekk ndax la plupart ñoom ñett ñooy nekk mhm. te Omaro lu ko Waly di wax loolu rek xam nga la fois passée toog naa fi ne la euh, Omaro liñ koy wax di disant porte parole balaa Balago sekk moom la ndax Waly moo ko def porte parole am réew mi ñëpp gis communiqué yu bëri yuy génn yu waal balaa ko sekk di def da koy jaarale kii ci Omar Gueye te ñu koy wax Omaro mu nekk fële ca 2STV yi mais xëy na li mu wax tam dama koy nangul ni fi mu doon waxee dafa waxee en tant que chroniqueur ndax émission bi ñuy woowee after plus te di jël raxtu raxu raxu woon ko fa la ko waxee mm-hmm. mais tamit gis nga euh, Alioune mm-hmm. bu ñuy naxante mm-hmm. Mbaye si Ndiaye kenn xameewu ko waxi caaxaan mbay ci bokk mbay si bokk na si Eh, nekk ñi nekk ci biir Ramadan ñu gën a néew ci li ñuy génn ci réseau sociaux yi Mbaye Sy Ndiaye bu ñu demee ba gis mu def lii di vidéo di wax wax bu mel ni la ëmëroo njunj ca 2STV yi kon bu dul bad buzz man maa ngi xaw a am jiixi njaaxal ñes ñi waali balaa go sekk est que du bëgg a bàyyi way mais waali bu bëggee bàyyi way man la ma waxoon la fois passée rek li Baye Zal wax rek comme Baye Zal nee na waali balaa go sekk te moom en tant que Baye Zal ñëpp xam ko fi mu féete waali balaa go sekk moo wax ni waali bàyyiwul way kon nañ xaar fii feek ci kanam werante xuxuxaan tekki tubéy bokk ci. feeg la 12 mars. waa feeg la 12 mars ak yeneen programme yi ñëw ndax war na dem fii nga xamante ne mooy Guinée yooyu yëpp ñu war koo xaar xool nu Wally Ballago Seck war a doxalee ndax am na ñoo xamante ne tey jii nii seen fit toogul ndax man keroog émission bi ma ci paree ñi ma ci déggantee ñu jege ñoom faramaareen yi ñu bëree bëri te jege waale ñoom seen xel dal hmm. man woo naa leen en personne liñ waxanteeg man nag seen xel dalu kon mu ngi wa mu day wane nii rek ñoom est-ce que amuñu xel ñaar ni Wally Ballago Seck tànk yi mu nekk nekkul tànk yi bàyyi ñenn ñi dañ naan euh, day bàyyi ci yoon bi la nekk ñenn ñi naan nekkul ci yoon bi xëy na dafay def benn stand boo xamante ni pour gën a mën a jugaat mais nag ñun daal li ñuy wax en tant que Blabla TV ñu ngi koy ñaan bu dee daa jël yoonu bàyyi mu xoolaat ñi nekkaat ci ginnaawam ndax Wally Ballago Seck ñi nekk ci ginnaawam dafa bari lool Alioune te ñàkkagul dara si musique nattu nag suñu borom da koy teg ku ne fii ku nekk ci àdduna rek day ñàkk li nga xamante ne moo di waajur mu bees wala mu nekk lu yéex kon donc dañ koy ñaanal rek bu dee dafa nekk ci tànk yooyu na ko bàyyi te xam ne carrément ne dafa am ñoo xamante ne Alioune hmm. dañoo nekk ci maanaam moom lañ teg li nga xamante ni mooy mooy ku leen di dimbali. ak koo xamante ne waajur lañ ko fekkee nax waali wax waye na way boo xamante ñoom ñëpp seen papa la ñu bëri papa lañ koy wax kon donc fi mu leen féetee la mais en tant que Baye Zale ni mu waxee ni Omaro en tant que chroniqueur la doon waxee man je suis d'accord toog na fa mais tamit en tant que chroniqueur doo sañ a génnee yenn kàddu yi ndax waale ñi nekk ci ginnaawam bëri na lool ba booy génnee yenn kàddu yi war nga koo seet seetaat te Mbaye Sy Ndiaye def na ko gis nañ ci di Dias Foro tamit génn na def benn communiqué boo xamante ne ci délégué ci ci waxu délégué amaar la ko teg kon ñoom ñëpp ins bi daal ñu ngi ci boo benn rukk boo xamante ne benn bëtsat boo xamante ne leeragul mais daal feek ci kanam werante xuuxaan tekk tubéy bokk ci le 12 ñu ngi koy xaar xool moom président balaa Ballago Seck bu génnee lan lay wax li nga xamante ni moo di askan wi bu ko tegee bu boobaa rek Aliou ñu toogaat ci plateau bi gën a leeral. Hmm. Pape Ousmane yaa ngi ko doon wax keroog ne eh, am na ñoo xam ne dafa am lu ñuy xëcc donc ci biir kàddu Baye Sall ma ci déggee bi euh, Umaro pare jokkoo nañu téléphone mu ne ko dama waxee ci anam boo xam ne peut-être sax nangu na ni waru ko woon a defe mais dafa def rek en tant que chroniqueur ak fans boo xam ne dafa fan waali di wax. bon man moom wax dëgg yàlla. je ne pas à ça. Hmm. gaw ma ni waali day bàyyi way parce que man loolu dafa futilité daal dafa yomb temps yii passé ñu ngi doon wax Sidi Diop day takk jabar fan lañu mujj son la doon génne ah Wally Ballago Seck day bàyyi way le douze la war a génne benn son lii ak lii ak lii donc man je me dis ay ay wax la rek pour wax loo nit ñi man lool laa jàpp man ba keroog may gis laneen mais lii nii ay détails la hmm. Wally lan moo tax muy bàyyi way lu xew ba muy bàyyi way dañ ko da nga war a bàyyi woy par force wala Wally dafa toog personnellement xam ni man dama war a bàyyi way quest que ça passe lan la bu dee ñi mu ñàkk moo tax muy bàyyi way du moom rek moo fi ñàkk ay nit waykat yu gën a mag dañ fiy ñàkk te du tey ñu ngi way ñu ki gën a populaire dañ fiy ñàkk te du tey dañuy woy moom moo choice ni man dama bëgg a nekk waykat footballeur la waroon ne nekkul footballeur ba muy nekk waykat Sénégal quatre pour cent ci réew mi bëgguñu ko woon gëmuñu ko woon dañ ko doon critiquer coon ji ñëw duñu jéem a forcer doom ji baat boobu lañ ko doon tegal ba muy way ngéwal ngéwal ngéwal ba muy way ay voglio ba ni muy génnee yow mi nga xam ni boobu la ko papa ji may mu feñ ci clip bi di simuler ñëpp di ko gis naan eh xolo papa coon mu ñuy jéem a euh, doom ji ñëpp loolu lañ jàppoon ba waali àgg fii tey. Mhm. am fu mu toll ci sénégalais yi nag seen biir xol. Mhm. doo dugg oto boo déggul ñu teg waali doo def jàpp rajo boo déggul ñu teg waali ñii di jaay bitig boo dugg moom la ñuy teg. Mhm. yàlla moo def loolu waali dugg ci biir xolu doomu aadama yi. mais yàlla moo ni ku bañ a dee bul judd képp ku judd di nga dee muy man muy ñëpp wax boobu dama ko yàgg di wax dee dañ ko war di sóoraale booy daw muy daw ngay daagu muy daagu ngay nelaw muy nelaw ngay sangu muy sangu dee foo nekk mi ngi ànd ak yow nit du romb sa minute kon nag moom exemple la mhm. exemple la ci senegal nit ñi dañ koy bàyyi xel bu baax a baax mu nekk nit koo xamante ni fu mu yëkkatee baatam ñëpp daw waale fu mu nee may tëgg ñëpp daw am na tey ñoo xamante ni ba ñu déggee lii ba léegi lekkatuñu naanatuñu nekkatuñu ay nit ndax cofeel gi ñu am si moom bay jooy mu jaral leen lu ne maam Ndiaye Savon gis naa mu def délégué Amar gis naa mu def mm-hmm. Omaro gis naa mu def ñeneen ak ñeneen fan yëpp dama topp réseaux sociaux yi di gis ñiy def mais man Pa Ousmane en naam et conscience man gëmuma ni waali day bàyyi way je ne crois pas à ça waali mooy way ba mu neex comme ni ko gars yi di waxee waali day kontine di way de yi day way ba mu neex parce que waali commencé gul dañ koo soxlo àdduna dañ kaa soxlo yàlla nag bu la bëggee dalay teg ay nattu yàlla ñi mu bëgg rek lay teg ay nattu ay nattu la yàlla teg ci kawam nag di ko natt di xool moom comportement am sang-sang yi ki fi gën ki fi mën ki fi raw ki fi sut yàlla da koo teg ay nattu yu metti xamul baayam màggul ak yaayam maamam moo ko yar gisul ay doomam te ba mu dayee ba am quarante trois ans yàlla def ko yónni ne que yaa gën ñëpp lu ma bind yow yaa ci gën may ko grade boobu daan na toog am problème lu mu lekk biir këram te teewul yàlla moo ko gënal la ñëpp wàll nag joxuma ko grade boobu mais dafa am loo xamante ni moom missionnaire la hmm. Wally c'est un missionnaire d'accord artiste missionnaire la Seydina mi toog xam na li may wax hmm. dafa am mission boo am ak pacte bi ak doomu aadama yi waali keroog ba mu toogee kër masaar ñëpp di ko déglu mu ne na diig woy bi diig waali foofu dafa mel ni ku tiim téere di wax ak nit ñi man duma dara yéen du ngeen dara lii ñuy def nii duñu dara man ni ma mel yéen a tax na ngeen gëm seen bopp na ngeen gëm liggéey mais genre nit yi tey bu ñu demee toog ni damay bàyyi woy ko muy bàyyi woy parce que est-ce amul lu ko tënk tamit déglu ma rek ma ñëw lu ko mënti tënk lu ko mënti tënk man gëwuma loolu. Hmm. gëwuma ni Wally day bàyyi woy man pa Ousmane. bu ma demee nag ba moom ci làmmiñam mu taxaw. moom personnellement mu ni man Wally damay bàyyi woy bu booboo ma ne ah kon li ñëpp doon wax dëgg la. mais man ba keroog muy sànq. ba dernière seconde. du ma nangu ni Wally day bàyyi woy mhm. man gëwuma ko. waaw parce que buzz nu ne lañ koy wutee. mais man pa Ousmane en âme et conscience je ne crois pas à ça. Wally mooy woy ba mu neex. day way de day continuer way Wally day continuer di way Kurita ñu déglu ci Adamo aussi mu ne mu wax lu ma interpellé man aussi mooy gars yi dañuy natt rek di xool fan la faramaare ni toll ci Wally moo tax peut-être ñu lancer bile campagne campagnes est-ce que d'accord nga ci loolu Euh, si si d'accord naa ci parce que booy seet euh, l'autre jour maa ngi koy soulever nee naa leen euh, Wally je ne pense pas que mu ne muy bàyyi wooy peut-être euh, dafa war a génnee benn album boo xamante ne mu bëgg a attirer attention nit ñi lépp rek euh, ci business la koy teg je pense bien. parce que booy seet euh, ki nekk si staff am moomu maa ngi seetaan vidéo ba mu génnee di wax mu ne xam nga yaa ngi koy wax léegi Omaro peut-être dafa wax comme Fanks rek. Hmm. kooku ci boppam moom pourtant nee na Wally bàyyil woy de mais nit ñee ko déggul ba tax na nit ñi tey boo xoolee commentaire yi ñu si bëri. tey il se pose la question naan Wally day bàyyi wala bàyyul parce que fu mu toll nii euh, da koo def ci xelu sénégalais ba ñëpp fu ñu toll dañuy posé wu question boobu noonu même bu ñu leen ne woon Wally bàyyil wooy sax tant que Wally génnul en personne wax je ne pense pas que ñu nangu ko. Mm. mais Wally moom li ma la mën a wax mooy Wally man duma tàyyi ci di wax tant que waxu ko de sa propre bouche que damay bàyyi woy man duma ko gëm. Mm. et je me dis aussi que tey jii xam nga artistes yi tey ku ci nekk ak ni ngay lancer sa album. ku ci nekk ak ni ngay mayaatee sa bopp buzz. Euh, loolu la ndax ku am na ñoo xamante ne tey mën nañ wax loolu mu génnee album pour album bi gën a cartonné loolu yëpp ci biir la tamit maanaam bëggul tey xaw a sénégalais xaw ko fàtte parce que boo seetee tey moom dafa nekk ci dëy kon dëy boobu mu nekk tey euh, terewul moom mu ngi ciy wane boppam. Hmm. waaw mu ciy wane boppam bu baax a baax ndax tey bu ñëpp jógee di wax ci moom kon nga xam ni tey euh, nit ñi fàttew ñu ko te mu ngi ci xolu sénégalais te Wally sax comme ni ma koy waxee la chanteur du peuple <laughs> waaw moom daal li ma la mën a wax ci gàttal Seydina Aline Wally day bàyyi wala du bàyyi loolu moom je me dis ni du débat daal parce que wax du yàqu la d'accord ñu tuuti rek allez-y bala maa dem ni nga ma ni nga sagalee sant naa la gërëm naa la Wally sant na yàlla sant na yàlla bu baax a baax a baax a baax te genre nit yooyu du way genre way yi ba pare ay détails yu ndaw yi di ko bàyyiloo mhm, waali xam na ni lii metti na ku gëm yàlla ñàkk wayjur bu jigéen mhm. dara gënu ko metti dafa mhm. metti ñàkk ci ci benn at bi si ñetti at nga ñàkk si ay way ay affaires yu rëy si yow dafa metti mais nag moom bu dellu see na xoolaat woyam boobu ne ni nga ma teralee ni nga ma sagalee sant naa la gërëm naa la thank you Allah. sant na yàlla bu baax te woy boobu. man bu ma demee sax ba bëgg dëgg-dëgg. way boobu laay toog di ko déglu te daf may defal mhm. muy lu important quand même ñu am bi euh, un grand artiste Seydina Diop moom itam mu bokk ci euh, ndaanaan yi fii ci Sénégal danañ ko bàyyi mu nuyoo waaye itam euh, Seydina dama lay joxaale question est-ce que d'accord nga ni artiste lu mel ni mën na koo gàllankoor ba mu bàyyi woy maanaam ñàkk ay nit. Seydina Seydina Diop suma ñaari siste yi Souleymane le maestro sama copain mhm. maa ngi lay bëggee bu baax di bëggee ñëpp di bëggee tamit waa site bi ah. di bëggee suma xarit euh, Bamba di ko baax vraiment moo tax ma ñëw fii mhm. xam nga mettre ma relation ak yéen yow tamit yàgg naa la suivre. d'accord waaw dama la apprécier ah. d'accord merci dama ko wax sa waay. merci dama la apprécier trop parce que vraiment. nit moom soo mënee li ngay def rek. Mm. dara la yow moom ñoo bokk yoon bi. Mm. ba pour te dire ma wax la tuuti rek si moom. parce que c'est très important sax lii ma fekkee ko. Mm. parce que am na lu jot a dund ñun ci aar bi. waaw parce que man suma premier album Youssou Ndour moo ko def. xam ma defaat yeneen affaire fii way fi apprenti. ba tax na sax nit ñi Seydina apprenti lan may Ah, am na kii euh, album bu bees bu ma génnee benn single boo xam ni apprenti laa ko tuddee di si delloo njukkal apprenti yi mais la question de Wally Wally mënul bàyyi woy man góoma loolu peut-être buzz léegi yàq na Sénégal ba nga xam ni musique bi ñu ni ñu koy euh, tourner léegi dafa xaw a médiocre tuuti si bëgg sori xam nga te am na yu bëri yoo xam ne dëgg la bien vrai que musique ak buzz ñoo ànd parce que monde showbiz la xam nga mais nag aussi am na c'est très important aussi xam nga ñuy mën a tamit eh, di bàyyi xel parce su yàggee nit ñi dañuy comprendre mais Wally bàyyul woy te du bàyyi woy te suñu demee ba koor gi passé bi nga gisaat Wally xam nga man moom li ma koy conseillé rek en tant que frère papam aussi nekkoon na suma xarit xam nga waroon nañ sax def morceau avant muy décédé mais li ma koy conseil mooy na xoolaat instructeur am entourage sama gis-gis xam nga li nga xam ne suñu borom daf ñu ko dimbalee ñu xam ko di ko gis de loin xamante wu la cent pour cent mais xam naa ne xam na ma man tamit xam naa ko parce que gisee nañ mais peut-être mu am lu mu fàtte tuuti ndax xam nga sagam nekkuma fi maa ngi Belgique loolu mooy différence bi chaque jour ñu mën a gisee mais entourage am na ko bàyyi xel defaraat ko. c'est important waaw te bàyyi ay nitu dëmbam mu bàyyi leen si xel ay nitu dëmbam su leen mënee jëlaat mu indi leen. dina leeral yoon bi. ci sunu gis-gis. ni nu sunu borom may. parce que nit ku ne nekk na doomu aadama. mais sunu borom rek moo xam ne nekk si moom. te kenn mënul wax lépp. ay artiste lan nag. Mhm. mais kenn mënul wax lépp. Mhm. mais na bàyyi xel indiwaat ay nitu démbam. d'accord jubóog ñoom xoolaat seggat biir ba ña nekk sa biir mu seggat leen. parce que galakoor yi bari na xam nga tombe waral ay gaaf mais na bàyyi xel ndax tombe waral ay gaaf te gàllankoor yi bëri na mu jéem a seetaat ay nitu démbam mu indi leen parce que ñooñu bagage lan fa galaaj lan fa xam nga man loolu chaque jour damay toog bëgg ko ko wax wala ma wax ko ku mu dendal mais jamono bi léegi dafa yàqu ba nga xam ni soo waxee nit dara day defe ni approche nga bëgg wala dara fekk boobu ñun suñu borom rek lañ gëm. d'accord waaw mais nag yàlla am na lu muy maye te am na ku ne lu mu lay may leneen. mais li ma koy conseiller mon frère Wally Seck demal nga xolaat gaa yu démb yi say nitu démb Amady Ahmed gars yi démb yi sa xaritu papa yi ñi nga xam ne say coloré papa lan nga jubóog ñoom indiwaat leen même ko su ñëwul sa nañ ñëwaat ndax foofu la bagage bi nekk nga xoolaat nag biir bi ndax yoon bi bëri nay gàllankoor jarama frérot sa kaw sa kanam. muy mhm. noonu analyse bu pertinent la ci euh, naa def ko muy artiste ni moom dañu dem ci beneen artist